tey nag dañoo bëgg a ñëw ci élection locale yi ak investiture bu benn bokk yaakaar ci département bu Mbàkke ndax coow li bari na frustration bi bari na ci biir benn bokk yaakaar bari na ci biir APR frustration bu mag a mag a mag moo am ci benn bokk yaakaar ci département bu Mbàkke ndax démb bi ñu waxee ne Gallo Ba lañ investir ci commune bu Mbàkke Matar Diop ci département bu Mbàkke coow li bari na groupe WhatsApp yi yi nga xam ne waa APR ñoo fa nekk ak waa benn bokk yaakaar ndaw ñi muy cadre yi kenn ku nekk ma ngi wax naqar wi nga xam ne am na ko ci investiture yi nga xam ne président Macky Sall def na ko ci département bu Mbacké bëri na ñoo xam ne nee nañu dañuy dem ci ay liste parallèle am na ñoo xam ne dañuy banque seen loxo ñu bari tamit ñoo ngi yëkkati ay kàddu di wax ne président Macky Sall amul considération si ñoom am na sax ñuy dem bay wax neddo ko bandum waaye nag loolu lépp yéen la rek yéen waa APR ak Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall tey li am ba des sax mooy yéen mérito ngeen lépp lu leen président Macky Sall def ndax yéen a ngi wax ne amul considération ci yéen moo tax mu jël ay nit te waxtaanu si ak yéen mais su ngeen mérito loolu mu def ak yéen wala mu doxalee ak yéen li ngeen mérito ndax yéen leer na leen ne président nii muy doxalee ak yéen ñimewu ko def ci yeneen localité yi dama leen yàgg wax yéen waa APR yéen waa Benno Bokk Yaakaar yéen ndaw ñi bokk ci APR rawatina dëkk ci Touba dama leen yàgg wax ne président Macky Sall waxuma sax manque de considération bi mu am ci yéen ñi koy jàppale waaye ci département bu Mbacké laa yàgg a wax ne président Macky Sall gisuma ne am na considération ci département bu Mbacké yàgg naa ko wax su ko defee saa su ko mosaa wax yéen ñi bokk ci benn Bokk Yaakaar yéen ñu bokk ci APR ngeen di def ay tournée naan président def na ay liggéey na Mbàkke liggéey na Touba def na fi lii def na fi laa te li nga xam ne moo gën a gën a jàmp Touba sëriñ bi yàgg ko sàkku ba léegi nii kenn réalisé wu ko muy inondation Touba muy ndox mi manqué ci Touba muy éclairage public bu Touba yàgg naa ko wax su ma ko waxee ngeen ne président ngeen ne dama leen a contre musuma leen contre man damaa dëkk ci département bu Mbàkke juddoo fi yaroo fi jàngee Mbàkke jàngee CM Gaynde Fatma lycée moderne bi nga xam ne booy sorti Mbàkke bi ñi fa njëkk def bac promotion bi fa njëkk def bac terminal si ñooñu laa bokk man kon kenn mënu ma génn ci département bi su may wax njariñul département Mbàkke moo tax may wax ndax damaa dëkk ci département bi ma gis ne président Macky Sall mi ñu wax nomeel civil ba militaire mu war a jël ay nit nome leen ci département bu Mbàkke ñu war di fekkee la ñuy nas ak nañuy noccee ci réew mi ndax département bi mérito na ko rawatina la deuxième ville du Sénégal Touba nekk ci département boobu su ma mosaa wax daw leen ma dégg may wax ne président Macky Sall amul benn nomination bu am solo bu mu def ci département bi amul considération bu mu jox ndaw ñi bu mu jox jigéen ñi su ma ko mosaa wax ngeen ne du ci dégg mos naa leen a wax fii na leen PUDC bi muy programme bi nga xam ne dañ koo jagleel monde rural bi yàgg naa ko wax ne dem leen ngeen xool yeneen communes yi yi nekk ci àll bi par rapport commune bu Mbàkke par rapport département bu Mbàkke xam ne xam ne maire yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbàkke ci monde rural bi dem nañ doon seeti sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa boole leen ak sëñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir mu recevoir leen kero bi ñu demee li ñu doon joytu mooy PUDC bi te PUDC bi leen yàgg wax na leen yéen ñiy jàppale président Macky Sall ci département bu sama xalaat loolu mooy sama gis-gis ndax par rapport nomina Touba kenn mënu kenn mënul wax politiku Sénégal wala kenn mënul wax Sénégal te doo si tudd euh, doo si tudd département bu Mbàkke même ci mbiru histoire rek histoire rek commune bu Mbàkke histoire politiku Sénégal kenn mënu ci génne commune bu Mbàkke waxatuma laa nag euh, deuxième ville du Sénégal di Touba. yan nomination ngeen am yan considération lañu leen jox bu président Macky Sall dikkee Touba même su leen ko yëgalut bu ngeen déggee am motard yéen ñëpp ngeen daw dem di booxante ci kër gi kër suñ Touba gi kooku ngeen bëgg ne dina leen jox respect au lieu que ngeen taxaw def politique bu normal ñenn ñi fonds de commerce lañ ko def ñenn ñi wut xaalis ngeen xeexante seen biir di tojante yu bopp yéenante leen jàmm kenn ku nekk bëgg jël sa militant yi moroom militant bi tey mu dem fekki kay suba mu fekki kay yéenante leen jàmm ba nga xam ne mënu leen lijjanti seen bopp xam ne Tuubaa lu fi xew sax keneen la ñuy yabal sa àll bu mu ñëw daam Jóob la ñuy yabal muy ñëw di lijjanti li nga xam ne moo xew Touba moo xam président màggal la wala ku muy jàlle wala nangam ak nangam la léeg-léeg sax ngeen dégg Lat Jóob ma nga xam ne ma nga sa Dakar sax ñëw Touba di fa poli di euh, di fa def politique foofu kon euh, su ko defee dama leen yàgg wax na leen il faut ngeen soppi aw doxalin ndax su ngeen amoon taxawaay bi ngeen waroon a am li leen dal tey du leen dal yéen ñu bokk ci benn bokk yaakaar bokk ci APR nekk ci département bu Mbacké ñi ëpp ci yéen àndul àndul ci investiture bu président Macky Sall bi am na ñoo xam ne ñemewuñ koo wax dañ ko ragal a wax menn Matar Diop mi moo taxawoon ne man man candidat la yéen ñu si des bëggoon ko mais kenn ñu wut a taxaw ne candidat la ngir ragal président Macky Sall ngeen siy ragal te yéen moom def di def politique àndul leen ci investiture bi am na ñoo xam ne vote sanction la ñuy def am na ñoo xam ne ñoo ngi préparé yeneen liste am na ñoo xam ne ñoo ngi préparé yeneen liste am na ñoo xam ne am na ñu leen naqari démb ba tey ñu baree baree bare jokkoo naa ak ñoom seen groupe WhatsApp yi président Macky Sall ku ko xool xam ne manque de considération bi mu am ci yéen ñi koy jàppale ci département bu Mbacké xam ngeen ne moos euh, par rapport yeneen par rapport yeneen localités yi te politique du diabolisation du yàq der fii bi fi Ousmane Sonko ñëwee Touba mooy temps événement ya am ñoo xam ne jóg monté ay journalistes monte ay nit nekk ci groupe whatsapp yi bëgg a jabalu yi si Ousmane Sonko bëgg koo jaxase ak yoonu murit ban ndam ngeen ci am amuleen ci benn ndam amuleen ci victoire mais déception ngeen ci am ak échec ndax fi mu ne nii Ousmane Sonko bu duggee Touba def embouteillage bu dugg màggal gi la ñëw Touba kenn ku nekk naan Ousmane sonk Ousmane Sonko tey bu ñëwoon Touba star la fi doon marché Ocass Ousmane Sonko ñi mu faa dem ndax bu fa demoon tey kenn du mën a génn kenn du mën a dugg loolu mooy dëgg ngeen ko doon jéem a jabalise màggalug Touba gis ngeen ne ko Serigne Cheikh Saliou Mbacke def téye ko dugal ko këram yeneen Mbacke Mbacke yi kon il faut mbir mi ñu xam ne du yàq der du jabul du def ay jabolisation mbir mi politique ci terrain bi la mais politique boo xam ne tibbante tànk ci seen biir. yéenante wu leen jàmm ñii def ko fond de commerce loolu mun a nekk. xam ngeen ne président nii mu doxaleeg yéen est ce que ñeme na koo doxaleeg euh, waa Louga est ce que ñeme na ko doxaleeg waa Fatick wala waa Fouta wala feneen ak feneen loolu laa laaj. beneen bi dafa bëri ñoo xam ne dañuy nax président Macky Sall rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoo nekk ay ay intermédiaire euh, am na si ñu bari ñoo xamante ni tey euh, liñ koy wax ak li am dëgg bokkul euh, am na ñoo xam ne nee ñu président da leen umilier ci investiture yi ñii di wax ne da ko bandum waaye loolu lépp yéen la rek ndax dafa am ci yéen ñoo xam ne Touba ñoru leen Mbàkke ñoru leen seen bopp leen ñor nit nag bu ko boppam rek ñoree nag wala alalu àdduna am na doxin woo xamante ni mënut ànd ak fulla ak fayda. Euh, te yéen ñiy jàppale président Macky Sall da ngeen a am problème mu leadership. leader bu mag kàngam bu taxaw ndax amu leen nomination boo xam ne bu tax ñuy wax la. loolu vraiment mbir la moo xamante ni tey. mbir mu doy waar a doy waar la. ndax ay infrastructure yi nga xamante ni tey moom la Touba yellool ak Mbàkke yéen xam ngeen ne amut. Touba deuxième ville du Sénégal. deuxième ville du Sénégal. xanaa Dakar bi nga xam ne moo nekk première ville du Sénégal. bu amee trente hôpitaux yu mag. xanaa ville bu topp ci moom gën gaa tuuti xanaa dinam am cinq wala moom dix waaye benn hôpital boo xamante ni yeggut boo xam ne si xaalisu réew mi la ñu defal ko ñu bokk ci réew mi ngeen bëgg ñoo amee leneen lan la président Macky Sall def Touba ni mu toll dayo Touba ni mu toll est-ce que tey dayo bii Touba am su doon beneen dëkk moo am tolluwaay boobu nekk deuxième ville du Sénégal est-ce que danañ ko traité ni ñu traité Touba jamono ji il faut ngeen xalaat ci loolu il faut ngeen xalaat ci loolu euh, kon mbokk yi lii laa waxoon ne